lan naqar ak tiis rek. Ah, waaw waaye li ma naqari kay comme yow li ma bëgg a wax. li ma bëgg a wax dinaa ko teg ci yar ak teggin te yàlla na nga ko jot seen njiit ya comme yow loolu moo la fi teg da ngay jottali. bëgg li may wax nga déglu ko attentivement nga jox ko seen njiit yi. Ah. ndax ñu dégg ko. d'accord li ma lay posé question mooy lan moo tax yéen. ngeen xëy dagg suñu données mobile Gilies. d'accord sëñ bi de. beneen mobile yi yaa ngi may woo si numéro 77 022 29 25 noonu la. waaw mooy Thierno Gueye waaw. voilà orange oh, moom lay jaajëfal ci yooyu leeral dégg nga man la Ndeye Khady man maa ngi ndaw bu la war a defal d'accord. Mm-hmm. léegi beneen mobile yi ñu ngi ko def nekk ci ñun la jógee état moo moo moo moo joxe instruction yooyu. Mm-hmm. d'accord état moo joxe instruction yooyu peut-être moom moo xam lan moo tax. Mm-hmm. comme la Fapal teewoon connexion bi noonu la ko defee waat tey. wa oh, dama ne dama ne yeen bi ngeen di signer contrat wulon ci contrat ne len suñu amé manifestation wala état bi am len naqare da ngeen di dag dana mobile contrat yi xam nga loolu bokku ci won légui lan moo tax nag yéen ngeen ñun ñi yeen biti ngeen yor di jaay ñun ñi jënd ñu jënd ba paré bëgg liggéey mënu ñoo liggéey lool fan ngeen ko tek wa ñoo ci ciy masaw bu baax mais état dafa ah, nekk waaw léegi nag yéen li ma bëgg wax moy yéen ak Macky Sall man dinaa leen porte plainte dinaa leen yóbbul ci yoon. waaw déglu ma rek soxna si li may wax nii dama ko parce que da ngeen di tooñ ah. parce que damaa jënd sama yëf waaw déglu ma rek soxna si soxna si ah, ñun man damaa jënd sama yëf ak sama ñeneen i moroom biti ngeen yor di jaay di jënd loolu yoonu état néew ci contrat yi ngeen yor signé wu leen ci état état ne bu ñu bëggee dagg données mobile da ngeen koy dagg loolu tegut ci yoon loolu dictature la. te yeen Macky Sall lepp lu mu def ci rew mi yeen ak Macky Sall yeen ko and complice ngeen affect Macky Sall bay leen di ñu togn bay leen dag suñuy donné mobile diko arrêté nit ñi bëgg liggéey duñ liggéey lool du respect amul ben dëkk bu séré bu am démocratie buñ ko ñi bu ngeen ko ñëmé def bu Sénégal ngeen ko ñëmé def France gi amul leen fitu def ko ta France ngeen dëkk kon bu ngeen ñëwé ba suñu réew ñu yaatal leen ngeen jël seeni ko kenn amul accès ci internet déggu leen ko fenn loolu luñu ñu la te dina leen kuta seer fii kenn du fi wàcc di toj wala ñu def lu ko nakar dañuy dem ak yéen ci yoon régime bii day daanu Macky Sall ala kulli aalin li ko dese bëru day wàcc ci suuf su wàccee ci suuf dañuy dem ak yéen ci yoon parce que da ngeen ñoo tooñ bàyyi leen tooñ tooñ baaxut Macky Sall lépp li muy teg doomu aadama yi su paree ci yéen ñu noonu la yéen ñoo yéen ko ci jàppale parce que ñu ngi nii mënuñoo am accès ci internet mënuñu dugg mun dafa ko teg soxna si li leen Macky Sall defloo seet leen ko seet leen seen diggante ak seen borom ak sen diggante ak yalla lank leen Macky Sall momul nit ñi momul Sénégal ba bu xey ab internet mun a na taxawal leen ko mu taxawal ko loolu tegu leen ko fenn da ngeen di togn bay leen togn togn baxut amul leen ben raison bu ngeen bu ngeen mën tax ngeen xëy ne da ngeen jot ay ordre ay ay ordre ngeen jot pour arrêter adonne boobu loolu fan la tege ci ban base ngeen koy teg ba pare man mi sama xaalis ngeen makoy delo waxu leen mako il faut ngeen respecter ñun africain yi quoi yéen orange respecté wu leen benn africain Europe yéen ba dëkk yi ngeen dëkk amu leen fit fa amu leen fit defal lu mel ni yii xam nga li ma xam naa ko bu baax da ngeen di ñëw nga xam ne président bi ñu àndal moo ñun dañuy not di ñu muuc suñuy deret ngeen jàppale leen ci dinañ leen ko facilité dinañ leen porte plainte dinañ dem ak yéen ci yoon man dinaa leen topp jusqu'à bout lu ma ma lu ma lu ma yoon may dinaa parce que nguuram Macky Sall git bu leen ñeneen jàppale beneen gudd day daanu ñëw de ta bu daanu ñew ci kàttanu borom bi man dina leen top duma ko bay parce que li ngeen def tëbu leen ko fenn bakkan yi wad ni ak li nga xamne ni mo na ci réew mi yeen yeen ak ak euh, benen ki operateur bu tigo bima bima euh, abonné man ñom lay waxal parce que ñom ñom ñom ci lay jënd ñu may jaay tooñ ngeen ñu nak fa toñam te li duñ ko bàyyi de dañ ko continuer sous abo parce que amu leen benn signification bu leer bu ngeen ñu mën a wax ne fi ngeen ko tek lu dañu jot ay instruction lool moy lan Macky Sall dafa mom rew mi Macky Sall mën naa xëy nit ñi duñ añ nit ñi duñ naan ndox Macky Sall dañ ko dénk suñu def lay war bu leen santé dara da ngeen di lank dem ak mom ci yoon amna ay vaay yu ngeen mëna jaar bi ngeen jaare ni vaay yi ngeen jaare bi ngeen di dugg Sénégal signé ay contrat mom ay ay yu leer yu légal li bokku ci won xam nga kon li ak togn la sama message bi na nang ko jot li autorité yi ne ci kaw nañ ko jot aristoroc nga joxal ma len ko limay wax lu leer la la fuma ko tek dina man dina yóbbu ci yoon di fuma wara dem dinaa demee parce que li di woy li même bu Macky Sall jógee man dama len du top parce que tegu ko fenn ma ngi xey bëgg a liggéey mënu maa liggéey tegu ko ci benn baas nga bané bànneexu benn nit Macky Sall nga xamni moy sacc sàcc alal réew mi ah suñu jarbaale suñu doom yaangi ni ñu len du door ay bal avec complice avec orange ak tigo parce que li yeen la tay parce que ñu nga waroon a wàcc tey mars ngeen da ngeen dag doon mi wul parce que parce que parce que Macky Sall ngeen di jappalé quoi parce que mo len jox ordre yéen ñi ko Macky Sall jox ordre ak ministre beeg yooyu yëpp dinañ dem ak yéen ci yoon dañ leen topp jusqu'à bout duñ bàyyi tarfatal ay ni bu leen yaakaar li dangeen de bu leen jàppale nag benn waay waay rek moo woo téléphone wax ak fi ma ko teg ci base yu teg dinaa dem ak yéen ci yoon te sénégalais yëpp dinañ dem ak yéen ci yoon parce que li ngeen nekk du dëgg lii nag na nga ko jotali autorité yu mag yi nga xam ne décision bi xaw ma Moussa Bokar Thiam la xaw ma Moussa Bakar Thiam nga xam ne amul xam-xam yëpp ne sénégalais yi ñaaw na respecté wu nit yow ñu jiital la nga naan da ngay tëj ay eh, vraiment vraiment yéen yéen daal yàlla na sama àq daal rek billahi wallahi taal yàlla na sama àq daal te yàlla dinañ àtt ak yéen